kon dañ doon laajte ñoom amaguñ ay t donc t-shirt yi ci sotti yi ñiy jaay t-shirt yi ñu ngi foofu ku nekk balaa ngay bi nga fexe am t parce que vingt cinq ans d'existence ça se célèbre donc ñi amagul t-shirt nañu fexe ñu am ko alors ñu jeexal programme bi waaye balaa ñuy jox sang bi dañu bëggoon femme pure yi sang bi bi ñuy waajal anniversaire bi ñoom dañuy wax ni ni ñu engagé woon ci caution bi ñoom ñoo engagé wu pour defaraat gâteau d'anniversaire bi te gâteau d'anniversaire bi zawo jàmm sama papier yi zawo jàmm sama papier yi gâteau d'anniversaire bi papier yi ma la joxoon léegi alors li tax may laaj papier yi mooy gâteau d'anniversaire bi ñaari njabootu Serigne Mouhamadou Moustapha Sy ñoom ñoo ko defar ñaari njaboot yoo xam ni loolu moom mooy seen domaine nekk ci femme pure yi muy soxna Asi alors réalisé par Asi Kitchou et maison du goût dirigée par soxna Asiatou donc yéen ñi nga xam ni yéen njabootu góor gi heure bu ngeen soxla ay gâteau cent dix trente un ci soixante dix huit cent cinquante sept alors ñoo defar gâteau bi ngeen di gis ñoom ñaari ñoo nekk nii ngeen tàccu leen bu baax a baax a baax a baax placé tàgg waaye Toubé war na placé tàgg na placé tàgg ànd ak moom félicitations soxna Asi félicitations à soxna Sophie ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax donc képp ku soxla remercier bu baax a baax encouragement les femmes pures ñoom ñi nga xam ne ñooy jël initiative départi vers le 25 mai donc di leen féliciter di leen remercier encore une fois merci beaucoup mouvement des femmes man daal léegi maa ngi mouvement des femmes bàyyi naa bàyyi naa yeneen yeneen commission yi te ñoom nee nañu c'est à l'honneur de ñaari carte d'identité benn bi El Hadj Ndiaye la tudd lieu de naissance am Kell Ndiaye donc moom bu paree mun na ñëw à la régie mu récupéré ko beneen bi c'est au nom dafa mel ni ñaar la El Hadj Ndiaye ak permis de conduire am la donc bu paree mën na ñëw fii à la régie mu récupéré ko alors mami am yóbbaale El Hadj après mu jësi ko léegi